ñu ne jumaa ja nekk aliye fa Touba dañu fay tere ku jàng xasida ak ku fa tudd Sëriñ Touba bu ma juumul maa ngi jàkkaarlook nii koo xam ne mi ngi yoroon téereb xasida di ko jàng kon loolu moom ñi fiy jullee ñépp mën nañ ci seere gannaaw bu seere suñu borom weesoo bu ñu ñëwee ci tomb bi ñuy fàttalante day yóbbaale toog fi barab lu la neex wax waaye ki taxaw teg tànkam ci ragal yàlla ak yaakaar yàlla moom lu mu dugg mën na caa génn te bokk yi ragal yàlla ak ragal lu mu mën di doon lu mu mën di doon lu ñuy ragal ku ko ragalu da nga koo yàpp duma ko jëme ci jëmmi sunu borom waaye ku ragal lenn lu mu mën doon lu ñuy ragal ka ko ragalu daa yab loola te wolof wax na ba tàyyi ne yabu nga ci sama mbojj lool de waaye doo ca jële nag aw jaloo wolof léebu na ko ba tàyyi kon ragal yàlla mooy jox cër yàlla ci pas-pas ci wax ak ci jëf pas-pas ba ci jiitu mooy mu wóor ko ne bu toogee fenn defe ne moom képp fa nekk lu ko neex wax ku ko neex sosal ko na xam ne am na wéttal muy subhanahu wa taala yàpp ko nag weesuwut jàpp ne nekku fa ku jàpp ne nekku fa lu ko neex mën na ko wax waaye bis dana wéeteeg moom ba mu defee ni moom dong la yàlla bind ci jaamam yi wa kulluhum aatihi yowma alqiyamati fardaa donte waxoon na fii ci àdduna ne maa yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum mooy sunu borom wala xamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dalika wala akthara illa huwa maahum aynama kaanu aynama kaanu fu ñu mën a nekk bu ëllëgee nag thumma yunabbiuhum bima amilu yowma alqiyaama inna allaha bi kulli cheyin alim loolu moom ku ci sikki sàkka lu ko neex mën na ko wax waaye warees naa mën a yàpp ku nekk nag ba mu des sunu borom subhanahu wa taala yàlla nu ci yàlla musal waaye yaakaar yàlla it moo ko ragal yàlla ñoom ñaar bi ma jëkk a tudd ay waru gar la ci ab jaam rawatina ab julit wu ko war digganteem ak sunu borom te du ko wàcc mukk li feeg mi ngi tuddoo baat boobu day xàq ju am ci nun yaakaar nag mooy koo xam ne xeeboo ko koo ne yaakaaruma la rek da koo xeeb danga ngaa xeeb man-manam xeeb am amam xeebam xelam xeet léppam yàlla na nu yàlla musul ci loolu waxuma laa muy dox suñu diggante ak suñu borom ñii ma jot a tudd seeni tur eh, ñu jaar ci xat-xat yoo xam ne nit di ca jaaraati dana jafe lu leen ci génn ragal yàlla ak wóolu yàlla rek tudd na fi seydina ibrahima alayhi salaam bi yonent bi sallallahu alayhi wa waxee ne yàlla moo ko ne bu yàlla nee na bu yonent bi nee na yàlla nee na nag te fekkut bokkut ak bokkut ak alquran am na ñu ko tuddee xadiis qudsi mu ne yàlla nee na jaamam bi moom sunu boroom subhaanahu wa taala fépp fu mu fabe yaakaaram wékk ko ci moom te yaakaar ja la ko ciy dimbale mooy yabeel doxul diggante mag moom ndax ragal na ko fu mu ko wooyee mu fekk ko fa laaj na ci alxuraan sax ci làmmiñu seydina ibrahima alayhi salaam a ifkan alihatan duna allahi turidun fa ma zannukum bi rabbil alamin bant yi ngeen fab wala ngeen tabax ko tudde ko yàlla di def di ci def lu nekk mu jaral leen lu ne waaw yàlla mi nga xam ne moo leen bind bind suuf seek bant yi nag lu ngeen fu ngeen ko teg moom fu ngeen fu ngeen ko bëgg a féetale am na lu ngeen yaakaar ci moom mbaa yebeel doxul seen diggante ak moom yàlla na nu ci yàlla musal Seydina Ibrahima moom mi ba muy wax yàlla nee na nee na nee na nee na ba fatanqal waa dëkk ba ak waa réew ma bañ teg ko loxo ba bëgg koo sànni ci bënn guñ taaloon bañ ko defee ca mbaq ga ba wëndeel ba mu xiir ñuy sànni daa indi ragal yàlla indi yaakaar yàlla ju mat yàlla génne ko ca ndax la mu wax rek benn baat la xasbunallahu wa ni'mal wakiil yàlla jox ndigal sawara sa mu sedd guy ba di ko bëgg a lor yàlla ne sawara sedd guy te ànd ak jàmm nag ci Ibrahima daan ne danañ xam ne saa su ne ñu jóge ki pexe waaye saa bu ñu pexee ba àggal ñay perte ñépp ñoo cay gën a perte wa araadu bihi kaydan fa ja'alnahumul axsariin axsar mooy ki gën a perte ki gëna daanu ci kàmb doon gasalaate waaye bam rendi loo doomam sayidna ibrahima it alayhi salaam mooy sababu tabaski wa fadaynaahu bi dibhin azim ba mu demee ba màggat am doom bëgg ko lool yàlla ne xaar leen moom xam na waaye nit ñi lay wan pas-pasub Seydina Ibrahima alayhi salaam ci ragal ko ak yaakaar ko mu ne ko rendi ko mu laaj doom ji doom ji ne ko defal lañu la digal ba mu koy tër di ko rend suñu borom wutal wutal ko ca am xar am xaaf wa fadaynaahu bi zabin azim loola it daf fay fësaat lool ragal yàlla gu ànd ak yaakaar yàlla képp yam ca yàlla na ko yàlla defal waaye beneen nabi bu ñuy Zakariya kaaf ha yaa ayn ku ko jàng da nga ci gis ayat yooyu ma jàng léegi <clears throat> is nada rabbahu nidaan xafiya qaala rabbi inni wahana mu minni ba aaya ba àgg màggat naa sama soxna màggat te ëmmaguma takk ndeer an lu tax mu di ko ñaan yàlla ci at yam toll ati góor sax mën naa dem ba yàgg lool di man di am doom waaye jigéen moom am na at yooyu bu ca àggee duutu ko yaakaar moom ci boppam waaye téewul ragal yàlla gi ragal neewoon naa ko ne ragaluma da nga ko yàpp jox cër yàlla te yaakaar ko moo tax mu salal koy loxo ne ko may ma doom waxum mu doon doom kese kese waaye na doon doom ji ñëpp dégg yàlla may ko ko ci ragal gum ko ragal cër gum cër bum ko jox genn yabeel doxul digganteem ak moom ca la dégg ñaanam nga ne ko yaa zakariya inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu yahya yàlla tudd na ko te juddoogul tolloogul sax fu muy feeñe ne kii mi ngeeg dara waaye yàlla moo ko ne may naa la ko nangam lay tudd mu wër ko ne kon doom ji lay am waaye doomam jooju toog na fi ba yàlla naa ko yaa yahya xudil kitaaba bi quwwa wa aataynaahu xukma sabiyan wa xanaanan min laduna wa zakatan wa kaana taqiya moom yaxya wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya wa salaamun alayhi yowma wulida wa yowma yamuutu wa yowma yubcasu xaya waaye sayidna Muusa alayhi salaam it fe watit wa daan jaar la wat moom itam ragal yàlla gu ma sëkk ak yaakaar yàlla di ko ndigal dabee mu war a woote woote ba moom itam fatanqal firawna ak nguuram la jël leen witt ak jaar-jaar yu bari yam jaar daa xëy xëy ni ko génnal dëkk bi te fekk Seydina Moussa daa am ndigalul génn dëkk bi rawale pas-pas yi nit ñi bala ñu leen a faagaagal ñoom ñëpp ba ñuy dem ba gekk ci géej ga na yëg ko di leen dab bañ ñëwee ba séen leen ba boo sànnee ak fitt sax mën naa jëm kenn nit ñi toppoon Seydina Muusa tàmbalee dengi dengi ndax xat-xat rek ne ko waaw li ñu dugg yaa ñu si dugal gaa yaa nga nee nag ak si nañ daanaka inna la mudrakuun ñoom luy dox lañ yor te ñun dañuy dox suñuy tànk ñu ngi ni sës ci géej gi géej génn suñ kanam gaa yaa ngi suñ gannaaw yor ay gànnaay te faagaagal leen mooy faagaagal nu moo leen tax a jóg léegi nag xoolal noo ñuy def sidna Muusaa lu mu def dina yàlla yaa ma wooteloo maa ngi nii gaa ñaa ngi nii yàlla ne ko yat wi nga yor eh, laajoon naa la maa tilka bi yaminika yaa Muusaa loo waxoon mu ne hiya asaaya atawakka'u alayha wa ahushu biha ala ganami waliya fiha maaribu uxra loo yor mu ne aw yat bu doon bu doon ñun laa yor yam waaye da ko ne lii ma yor nii sama aw samay at tax na su may dox ci lay sukkandiku di dox mooy sama ñetteelu tànk bu ma bëggee wàññi sama jurit moom laa leen di wàññee waaye it leneen lu ma soxla it yeneen yitte yu bari yu ma mënta lim ku ne xam na aaya ba ca topp ak la ca topp ci ay xarbaax qaala alqiha ya muusa fa alqaaha fa ida fa ida hiya xayitun tasa qaala xudha wala taxaaf mu ne ko yat woowu nag dóor ko ci géej gi rek warante wu ca ragal yàlla ga ak yaakaar yàlla ga tax rek mu def la mu ko waxoon mu mel ne lii ñu xam léegi ci jéggi ndox muy ab pont pont pom boobu ñépp jéggi jàll ya ca topp toppaat ca waaye foofu mooy xat-xat ba mu toll woon ragal yàlla gu ma sëkk ak yaakaar yàlla képp yemalewu ko dara moo ko ca génne woon yooyu ñu tudd nag ak yi ñu tuddul yépp ba ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallama ba mu amee ndigalul gàddaay ànd ak seydina abu bakrin siddiq ba gaa yi yëg leen di leen topp ñu dugg ci am xunti la ca xew-xew ca foofa it mooy ragal yàlla rek ak yaakaar yàlla xam ne yàlla bu joxoñee moom boo dëpput da nga taseeg lam la digoon id axrajahu alladina kafaru thaniya ithnayni id huma fi lgaar id yaqulu li saaxibihi la taxzan inna allaha maana fa anzala allahu sakinatahu alayhi wa ayadahu bi junudin lam tarawha wa jaala kalimata alladina kafaru sufla wa al ulya ñi ko doon dab si ci biir xunti moomu xar baax yañ fa fekk yiñ seetlu yiñ gisute ko gën a yéeme ulama u siira nee nañ am na koo xam ne benn tànkam fi ko teg bu xooleen ci suuf rek gis na Abu Bakar sallallahu alayhi wa sallam tëdd ci kawam waaye nag yàlla mooy wane ay gëti kese kese du tax nga gis dara fa innaha la taamal absaar walakin taamal qulubu allati fi sudur pi eh, tax mu ñëw tàgg faak jargoñ mu fa lënd ak yooyu yépp la leen tey gis mooy ñooñu dañoo tënkoo ñu déglu suñu borom rek yam sa képp ragal ko yaakaar ko seydina abu bakrin siddiq moom moom ragal yàlla gaa yaakaar yàlla ga mëni su ko wax moo ne woon lu yonent bi wax rek lu Muhammad wax rek ginnaaw ci làmmiñam la génne wax na dëgg moom la sëriñ bi wax ne li kaw ko doon wax naan di su fa jàng xasida maa ngi bëgg a jàng ay xasida ay xasaayid yoo xam ne yii maa ngi nii bind ko tiim ko waaye mokkaloon naa ko bu yàgg bi ankabootin nasajat euh, wa min xawaariqa bada la tàmbalee maa xaaza xaarul muqtada صلى عليه من هدى به ذوي التفهم بعنكبوت نسجت مع حمام أثبتت حوما به قد سطرت ذاتيهما كظلم والكافرون قد أتوا وأثر الماهي قفوا ومنه شيئا لم يروا ورجعوا بالألم وهو ذو تستر مع العتيق الأكبر في الغار مرأى نظري وما رأوا من أريم حمى الحفيظ المانع يغني عن المدافع لكل عبد خاشع يطلب خير الحروم kon na nit ñi delloo si seeni xel bu baax ci ragal yàlla ci seeni wax ndax koo ne ragaluma la rek da koo yàpp yàlla na nu yàlla musal ci baat boobu dox suñu diggante ak suñu boroom te mooy léeg-léeg rek nga jàpp ne yow doo nga fa nekk yàlla nekk fa waaye yàlla nu yàlla dimbali it bañ yaakaar yàlla képp yam ca ndax ku yaakaar yàlla yàlla du du tas yaakaar mukk kon ragal ak yaakaar yàlla na nu yàlla dimbali bañ bañ koo tegg suñu diggante ak suñu boroom di jaale nag ayu yi yàlla wan nanu boppam jële fi ay ruw yu bari euh, sabab yi nag bari na noonu la ko yàlla jubloo téewula seetluwaat téewula daw lee góorlu ci moytu waaye ñoom ñëpp yàlla na leen yàlla yërëm ñu ngi fi bàyyi ci ay bokk tey suñuy bokk ndax kenn ku faatu ci doomu aadama rek doomu aadama yëpp a ko ñàkk ndax yàlla indiwu ko fi woon rek ci neen maa na sama wal arda wa ma baynahuma baatila su ko defee ñi ñu fi bàyyi it yàlla na yàlla may xolub muñ te bàyyi leen fi may njàgg leen a ñaanal ñi yor daamar yi it ñu gën a delloo dolli farlu gi bàyyi jëkkante bi bàyyi teg bët ci alal kese kese ndax kat loolu ñuy liggéeyee lu ne lu baax mën nañ ko caa jëlee waaye dem di fa mën mën a jëlee lu baax nag leneen li ko fa yóbbu mën na ko faa jëlee yàlla nañu ci yàlla musal yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp te saxal nu ci ragal yàlla ak raa yaakaar yàlla te dimbalal nu boppam ba yàlla bu mu doxalee suñu diggante lu ñuy toppante ëllëg ndax kat àjjana li muy neex neex suñu borom nee na ci alxuraan am na ñu fay dugg ñoo xam ne daa am lu mu dindi ci ñoom ñu door a dugg ñooñu seen dugg aljana am na lu dox ak lu lu koy teree neex na mu war a neexe dëgg dëgg dëgg dëgg udxulaha bi salaamin aminin yàlla nu ci yàlla boole waaye nag yàlla nu yàlla dimbale bañ bañ a bokk wa nazaana ma fi sudurihim min xillin ixwanan ala ixwan ba aaya ba àgg mooy fii yàlla fii li muy dindi si ñun ba bu ñuy dem aljanna ëllëg set wicc nekk fa xel mu dal waxtaane nañ ko ba tey fàttalente nañ ko ba tey bopp bu tuuti sedd guy moo gën fuuf bopp bu yaweeku toll nu nekk boroom di xalaat tëdd guddi di xalaat li wax diw tëdd di xalaat li def diw loolu amut leen lu ci neen digganteem ak suñu borom ëllëg kat dana am ñu jàkkaarloog téere bi biñ def seeni mbir ñoom ñépp fi may waxee ne fa euh, fa amma man utiya kitaabahu bi yaminihi fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiran wa yanqalibu ila ahlihi masrura ku jëlee loxoom ndeyjooram ab téeréem na rafet njortu ci ne lim ciy jàng lépp ñëpp dana ko mën a dégg waaye wa amma man utiya kitaabahu waraa zahrihi fa sawfa yadcu thuburan yàlla na ci yàlla musal am nañu jàng seen ab téere ne fekk dañ ca am ndigalu jàng duñ sañ a bañ iqra kitaabak kafa bi nafsika al yawma alayka xasiba tey yaway wax li nga defoon lépp yow ma tubala sarair am na ñuy jàng ne yaa waylatana ma li hada alkitab laa yugaadiru saxiratan wala kabiratan illa axsaa ay moom fu mu jëm bii téere téere boo xam ne loo mas a def lum tuuti tuuti ak lu mu rëy rëy dara umpewu ci ndekete wa wajadu ma amilu xaadira waaye ñi naan tam lépp adduna la yam nangam adduna la yam ay caaxaan la ku ko wed ku ko wed rek ku ko saxal rek wed na alquran wa kullu shay'in faaluhu fi zubur wa kullu saxirin wa kabirin mustaqar yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp te musulun cheytaan ak bakkam yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin